man la Omar Gueye le plénipotentiaire de la coalition Idy 2019. voilà lan ñu nemmeeku ci euh, waaw li ñu nemmeeku ci Madiyana ci ci Touba laa la wax. ci Touba ak ci département bi. ci processus euh, maanaam ci processus euh, vote bi. dafa am vraiment ay rëq-rëq yu bari yoo xam ne nemmoo nañ ko ci plan organisation bi. ci du ñu ñett yi même bu ñu teewut ñaar teew pour vote bi mën a démarrer gis nañ ne président ba rek mooy teew wala xëy na sax secrétaire mooy teew. nit ñi toog ba 10 heures bureau am na ci bureau de vote yoo ne si ci la door a commencé. bon am na ci bureau de vote yoo xam ne li gën mooy yoo xam ne ay urne sax newu fa ci université Darou Khoudoss nga xam ne ay urne sax newu fa il a fallu intervention de la du gouverneur préfet man en tant que plénipotentiaire kenn mënu ko jot téléphone superviseur bi ko war a régler foofu ñu ne moo ko war a régler kenn mënu koo gis il a fallu l' intervention du gouverneur pour que mu déplacé wu ñëw ñu mën a régler ñu mën a wuti ay urne pour man koo indi pour régulariser situation boobu waaw fi ñu toll nii may waxee yow ci jamono bi may waxee yow en tout cas huit heures ba dix heures ba dix heures et amoon na bureau de vote yoo xam ne amuloon urne waaw. léegi nag wax nañ ko gouverneur il la pris la situation nee na ñu ngi koy régler la situation. gannaaw mooy la ordre léegi li gën a grave nag mooy ordre de mission yooyu nga wax parce que man en tant que plénipotentiaire bari am na ñu ma woo ay plainte ay mandataire ci dans euh, lieu de vote yi nga xam ne moo nekk ci ci ci ci arrondissement ba même ba biir Mbacké di ma signaler ay ordre de mission bi gën a grave nag au niveau de Darou Khoudoss 2 parce que yaari deux Daaru Xudoos Daaru Xudoos deux ñoom wax nañ ne foofu lañ ma wax ne ma am na nit ñu jox ay ordre de mission ñu ñëw bëggoon a voté mais heureusement xale yi maanaam mandataires yi ak ñi gis nañ leen bousculer leen parce que dafa am ñu leen gis fañ ko doon defaree top leen ñu bëggoon a voté nag ñu ana ñu wax ko gendarme yi ay effectivement donc cela dit que ne kon am na fu ñu nekk ci biir Touba ay béréb yu yu yoo xam ne si ñoom fa lañ def quartier général dafa defar ay ordre di ko jox ay nit pour ñu voté ji loolu nañ ko en tout cas wax nañ ko ñi ñu ko war a wax yëpp attiré nañ attention ci euh, euh, presse bi comme nii ma def ni wax nañ ko les observateurs wax nañ ko en tout cas les journalistes au niveau de Mbacké fekk na man am na information boobu à Touba. li ñu fas yéene def moom li ñu wax leer na képp koo xam ne si ne jox nañ la ab ordre de mission ordre de mission xam nañ ñi ko war a am ñi nga xam ne si daño fen démb bi ala la sous-préfecture de Ndam ordre de mission yañ fa doon tiré nga xam ne si ay ordre de la am naa ci altercation tout ça ak ka ko doon defar parce que dama ne ko daa fekk ñuy tiire représentant yi mu ne nañ ko bàyyi defar ordre de mission yi ordre de mission yi bari woon matu woon sax cent kon suñu gisaatee ay jigéen ñu di leen jox ordre de mission ku dul yi fi indi comme wala chauffeur yi ñun xam nañ ñi ñu fi indi ay ordre mission jigéen ñi ñu fi gis ñu jox la ordre mission wala góor guñ fi gis ñu jox la ordre nga dëkk fii danañ tàqale sa bopp ak